parce que dafa nekk ci diggante dund ak dee feebar bu mu amee nii ay médicament lay jël barke Serigne Babacar Sy ay médicament te médicament yi mënu ci dara au trop tard day dee kenn xamul man sax dama ko yërëm loolu moo koy poussé muy def yenn yi même boo xamee ne nit ki moo raison sax moom du bàyyi mu sedd parce que dafa feebar dafa feebar dem leen Google ngeen jël seen Google ngeen bind l'état si ngeen bind célébreuse da ngeen ko gis dinaa leen ko bindal leen koy binde exactement feebar la boo xam ne kenn mënu koo faj ay bu kamaa ngay jël moom moo nekk ci moom diggante dund la nekk ak dee dalay rey largement largement la lay rey looloo rey magam bu mu bokkal ndey bay baay tudd Issa Doumbouya man samay information day leer nañ barki Serigne Babacar Sy billaahi bàyyi leen ko ñu focus ci la set ngir yàlla ak yonent bi te ñu ñaanal ko yàlla sàmm ko may ko wér ak gudd fan parce que tamit dee kenn du ko ñaanal nit mais feebar bi mu yore kenn mënu ko faj kenn mënu ko faj wasalaam